ma balsasin nee nañ keroog la sëñ bi wax des koo nee na keroog diine ji ak lislaam ji dëgg nañu mbég mu rëy rëy ci gan gi damay marsiyaal te yoonu ñaareer sama sëriñ borom jannatul mawaat turam ku ne xam na ko at ak ñaar fukki fan ak benn la ko sëriñ Abdou Lahad Mbacké waaye loolu dañ ko boolewaat ni ñu bokkee sëriñ Tuubaa ñu bokkee waat ni sëriñ Modou Asta Jaxate noonu lañ bokkee soxna Fatou si jàng libaas noonu lañ bokkee libaas ci boppam waaye liñ koy bokk bokk terewut sëriñ Saalihu ni mu ni mu defee woon sëriñ euh, Abdou kilifa kenn mënu ko weesu daal ci ci nangoo am kilifa. bokk naa ci ñi ñi ñi daay dégg moom mu wax ni moom Sëriñ Saliou daat ni Sëriñ Soy bu moom mooy sama xarit bu ma dee kaf wala may léggan moom laa koy jëmee waaye maag Sëriñ Soy moom seen daal kilifa lañ ko def goo xam ni fan teg Sëriñ Tuubaa rek fan lañ ko teg li li Sëriñ Tuubaa sañ ci ñun lépp itam seen daal sañal ko ci ñun te jëf leen teg ci dina wiññi te duñu ñeebbu ak dina jëmee fa ko soob te duñ ko won dara luy tegtal ni fi mu ne jëmee jugut fi noonu. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. ñu ngi nuyu. ma ngi leen di nuyu. ñu mbokki taalibe yi murid yi fi daje yëpp tey yi murid yi fi daje yëpp. yéen ñii bokki jullit yëpp ci fu ñu mën a ne. ak yi ñii bokki jullit yëpp ak fu ñu mën a ne. ñu ngi di siyaare di leen baalu àq. maa ngi leen di siyaare te di leen balu ak. tey bale ak. tey bale ak. fàttali sama bopp. tey fàttali sama bopp. di leen fàttali. di leen fàttali. li nu fi andi bàyyi nu fi. li nu fi andi te bàyyi nu fi. sëñ Saliou ànd woon ak Serigne Abdou Lahad danañ ca xamee nit koom kilifa ku nekk noo war a toppee sa kilifa Serigne Abdou Lahad itam ni mu ànd woon ak Serigne Saliou danañ ca xamee kilifa gu nekk noo war a mate kilifa. Serigne Saliou kër Moussa Moussa dogal dara. du lenn du lenn du ko ñuy wutal soxna du ci njabootam bu ñuy joxe waa këram sax bu bu ci sëñ bi doon joxe kam koy jox ak nga ko jox maanaam da koy def man daanaka sëñ Saliou dóor ko yëg. sëñ Saliou njabootam gépp ku ci ne foo dem rek sëñ Saliou moo la fa yóbbu sëñ Abdou Lahad moo la fa yóbbu ci jigéen ñëpp góor ñëpp itam ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp la jëbaleen sëñ Abdou Lahad ku ci ne fa nga ne moo la fa yóbbu sëñ Bassirou sëñ Saliou mii sëñ Abdou Lahad da koy eh, séddee sëñ Bassirou yóbbu ko fa. sëñ Moustapha ak sëñ Cheikh Say sëñ Cheikhoum sëñ Saliou sëñ Ibrahima mos a méngoo mu i kilifteef. mosuñoo umpante e, ci dara sëñ Saliou mën naa mën naa wax sax ne kaas bii rek bala ko woon a toxal sëñ Abdoulaye dana ko yëg man da nga daa waxtaan ak moom ci biir wax ja mën a ah, li ko sëñ Abdi yëg li ko sëñ Abdi yëgugul de moo tax mënuguma ci def dara. njabootu e, e, jullit yëpp ba ci waa bi sax ñi ci ànd ak xel ku ci ne mën na caa gis nu muy àndee kam àndal ak ko ànd ak nit itam nooy nangu ma àndee naa ak yow. ci wàll yëpp ci métier aada yi ak métier diine yi. ñoom ñaar seen diggante ak seen doxin royteef la ci nun ñëpp ndax luñ jàngal la ñu la wan la te du du lu yàgg luñ dund lu ñëpp fekke la kon doon sax loo xam si dafa weesu wala bañ naa fekkewuñ wuñ dégg nañ ko amoon nañ ñu ko doon dégg déedéet. wóolu ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ Touba rek lañ ko def. fi leen sëñ Touba toll kenn ku ne da nga doon xool euh, sëriñ Touba. ci sa bopp waaw maanaam amul kenn koo xam si ne da nga xool leneen loolu euh, ci sëriñ euh, Serigne Touba kese donte yaatal nañ ko ci ñi bokk Serigne Touba ñëpp it loolu moom dafa amoon lu dox seen diggante ñoom ñaar ñoo xam ne euh, maanaam kenn ko ne mën nga cee teg mën nga cee teg sa bët. sëñ laat mas na ko ni Serigne Touba xamal na ma ni bu ñu demee ca barabu Serigne Touba ba loolu fa ñaan yàlla dana ko nangu. man jotaay boobu defe naa bi mu bi mu ma koy wax Serigne ak si Moustapha Diaw fekkee woon ko mu ne ba ñu àggee si laaj di ñaan ne moom mu toog bañ a ñaan bi ñu génnee si laaj ne ko sa sa Serigne Saliou loo ñaan nee ma ne ko man ñemewu ma ñu ànd may ñaan ngay ñaan ngay ñaan may ñaan sa biiru ñaan ci laa tàbbi. ñoom de eh, Serigne Touba jox na leen ab cër bu wér wér wér wér boo xam ne su ko jaxasoo ak ñoom oh, gis nga ko wala boo xam nga ko. sa dem gi daal jaaxal nanu yow lanu xam nga dem banu fu ñuy jëlee te xel mu dal sëñ Saliou mii tamit dem ci daara yi nii di delsi moom waxtu wane da koo def ab liggéey ñoom ñëpp xam nañ ko ci waaye fu mu na masa narañ am ñetti fan yónnee na ci siim laan ne ko man kat naa ngi waaj a dem barab sàngam ci daara yi te xam naa lu mu gàtt jàpp naa fa am ñetti fan ngir bu ko def soxla ci diggante bi daaray got jee at mu ne siñ ak xabaan dafa daan dem ñaari ñaari weer la yu taqaloo yoo xam ni bala faa dellusi ci diwén waaye balaa dem day tàggu siñ sariwu siim laat bu demee ba am fa fukki fan ak juróom siim laat da koy gane si am fa ñetti fan yu taqaloo daaraam yi lim koy jege-jege mu waaj bi bëgg a dem got wala xaban bëgg a jóge fi dem fa ci biir waxtaan da ngay wax mu ne li ma ko yëgalu ko sëñ bi ma a maa ko yëgalu ko sëñ bi moo tax mënu maa dem koo xam sa kër ngay jóge dem jàll sa kër li tax eh, yëgalu gu ma ko moo tax mënu maa dem kon Euh, da ngay xam ne kon ñooña am na luñ jàppoon te doon ko te te doon ko doxal. tool yi Serigne Saliou sanc yëpp ci diggante 1934 ak léegi nga xam ne tool la yu moom du du ay doglu waan bu ci ne bu ko dogloo ba jotee day dem fa Serigne daal xamal ko ne ko sababu laa barab bu ma liggéey la Serigne Touba kat waaye maag tool yaanu bële yilif buñ ko dee ruut si daal tey fexe nañ ko ruujee bu ñu koy santaane mooy fexe nañ ko santaane. wala takunu anfusahum wala takunu kallasi nusula fa ansihum anfusahum noo ngi ñaan nag noo ngi ñaan nag noo ngi leen di sant itam noo ngi leen di sant itam tuub tuub tuub jëm ci yàlla sunu borom tuub jëm ci yàlla sunu borom waxtu waxtoom la lool waxtu yi waxtoom la lool waxtu yi waxtoom la lool te sunu borom moom te sunu borom moom li mu diggee woon li ko wóote mukk du ko wuute mukk. sëñ laa di itam jëpp jëpp jëpp du wan lan wan lenn lu tug taalibe sëñ Saliou waxi napp. ngërëm ñoom am nañ ko dañ ko judduwaale waaye nag lañ koy am am njariñ xam gañ xam am njariñ njariñu ngërëm moo tax bu seen ñu wut lu ko yokk ni tubaab xamee njariñul xaalis surtout siif bu ka ci gën a nekk milliardaire moo gën a mën a toppatoo ab dërëm ak ab saytu benn benn santimam bu fanaanee àll ci guddi gi du nelaw. ndax dana xam la tax mu fanaan mu fanaan la wala wala lu ko tee lu tee centime bi fanaan si jaral na ko lu ne ñoom it ngërëmu Sëriñ Tuubaa noonu leen jaral luy tax ñu am ko ak fu ñu ko séentu mu am ko lañ koy am am am am am di ko bari la mosuñu koo doyle waaw kon kon doonu lu kenn di eh, doyal du doonu lu kenn di doyle Sëriñ Saliou waxal na ni déedéet wéy ndigal tamaña topp xel ndax xel moom leeru leeru timis la cim lëndëm rek lay dolli borom jëmee ah, fa kii ndigal leeru fa lëndëm ak fajar la ah, day gën a leer rek loolu nag kon dafa mel ni euh, mat naa jàppe ci loolu daal aga gane ci jël sosin ba ni nga dellu te sin jaddoo fi yoonu sunna si te wax ji am na fi man euh, bi may bi euh, ci daara ji ba muy jotal ngërëm ci sama diggante sëriñ Abdou Lahad dafa mel ni lu ko andil ab jël moom moom sëriñ Abdou ci loxo sëriñ Saliou ne ko ah, mbaa xam nga leen mun naa ma ne ko fas doo doom ju mu amati yow laa koy jox doom ju mu amati yow laa koy ñetti yoon mu ne ko maa ngi koy tàmbalee ci ci amsatu ak euh, Moodu ak lim na de ak euh, Seexuna ak euh, sëñ Seex lim na bay dëpp juróom ne ko ñooñu moom dañuy daal di ñëw waaw ña ca desit am na ñoo ña nga ci chrétien yi bu di jàng ak yeneen yooyu yëpp naa leen dajale andil la leen dafa am bis boo xam ni damaa jóge njurul travaux bi paan lu gudd gudd gudd la neexut a leeral fekk na si yéen suñu suñu ablaat sax yeewee ko waaye jotaay ba fekke na ko. booba nag la ma doon dox dafay lu jëm ci travaux bi nga xam ne moo nekk bay laa te diñ may ndox nun waa njurul tan toll ci jamono ndeq sëñ bi xaalis bi Fallou Seck na ko yónni Fallou Seck sax indi na yeneen i xaalis yu bokkut ak bii sëñ bi ne ko xaalis bi may laaj du bii ba yàlla dogal Fallou indi xaalis ba sëñ bi ubbi ko fekk ca fukki junni ak ak bataaxel bi nga xam ne moom la sëñ bi daal lii de ragalal la nako ci loo sëñ laa sëñ Saliou daal di génne bataaxal bi fóon ko taf ko ci ab dënnam lemaat ko téye ñun ñëpp kenn jàng kenn gisu ci bataaxal ba mu mu daal di génne xaalis bi nag téye ko def ko nii yaar yoon daal ni xaalis bii de moom ak lettre bii ak doomi siim laat ji nga xam ne doomi Tuubaa damay ndeyam noonu la ko sëñ na nettalee mooy soxna mi de waaye loolu moom loolu la wax moom laa yëg ci lu ma siim laat mujjee yónnee daal ni ba mu koy yónnee de ndey doomi Tuubaa ji dem jooju la boole doom ji ak xaalis bi ak bataaxal bi ni daa bind ci bataaxal bi ne jàpp naa ni kii lay mu jàmm te sama ñëwoon gépp dama ko teg ci sa loxo ku ci mën a jiblu man koo wax moo ko waxal boppam koo joxe ne mënu koo wax maa ko koy waxal daal ni waxal naa ko na kii xam ne mën a gu ko ci leetar bii xaalis bii laa ko seeree bu màggee na dina dikk yeesalal ko boppam sëñu fu xaalis ba teg ci sama loxo ma bu yàgg ba tey ma bëgg fu fu ma def xaalis bi ngir mu sakkan sakkan goo xam ne fekk at nay tukki seen xaalis njariñ lay fekk seen laat travaux boobee nag li fekk nit ñi di ca naan yàlla di ca fay seen laat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 ku ci defar sax ba fasetal luy te loo karamatal ay ni ka nga wax ka ko fekk nag naa ko boo ko waxee dee da nga ko tëkk wax ko loo xam si ne kooku du ko ñemee génne boobu wax ji bëree bëri kooku du ko ñemee wax day xam ne da nga ñëw taggub sëriñ wax lu mu def lu yow nga xam ne kii ma de eh, sëriñ bi kat nañ mu def loo xam si ne moo gën a kawe lu waaye ñi mu man man man ñi muma koo nga waaw loolu nag eh, jamono toll na fi kenn sëriñ bu ni ñu ngay génne kiraama ya nga am waaye ñoom ba fi mu ne nii ku leen xamul mooy dox di wax ñi nga dégg ñu wax ñëpp dañuy tàndalee ko wax waaye xam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 bàmmeelam ni itteem nay itteem ndax lu mu deful du fa du ndax lu mu deful du fa fekk Serigne Saliou mas na maa dégg mu wax ni mooy at mi Serigne Abdou Lahad yokkee jumaa ji euh, ñu di ko joxub xaalis ba ci yàgg soxna wàllu mi dikk indi la lam joxe Serigne Saliou di waxal ba ci yàgg mu ne ko ah, a yeme mu ne ko ah sëñ bi xaalis mu yomb lool de salaaw dañ dajale naa li ma am lépp mi ngi nii sëñ bi ree mu ne ko sëñ bi xaalis yow yow yow rek la yomb waaye yombul ñëpp de sëñ bi ne ko ah, loolu gëm naa ko ndax yàlla wax na ni loo ñàkk ngir moom nangam waaye mas na maa wur condamné dajale ci li ma am bëgg bu màggal gu màggee ma ma ma waajal ko màggal gi. sëñ bi fekk ñëw fi euh, laaj ma ko fab ko yóbbu daan ne sedd gam sedd sama xol ci xam ne am naa kilifa te sañal na ma lu ne mën na maa may lu ne. yow yàlla ñoo ngi lay dagaan xagoom ba moom nay wala ngaan leera nga kulla samaan ci barke sun yonente ba ñaan yàlla mu taas na ci seeni barke eh, def leen yéen ñëpp ngeen ak ma eh, ay mag defal leen ngërëmu Sëñ Tuubaa nun ñëpp ñu am ko ndax ñoom loolu lañ doon sàkku lañ ko doon am am am am nga xam duñ ko judduwaale dañuy mel ne dañ ko teg fee saabu ni di wutaat luñ ca dolli. taalibe yi itam ñu xam ni euh, ku ko ci digg rek mu ñaanal suñu Tuubaa nangu ko defa la ko ci màggal gi boole ko boole it ci li ma war ci màggal gi. ci muy ci wax ji muy yëkko jëkkan bu dee yeneen dana ci topp ëllëg itam ak wala yeneen at suñu Tuubaa nangul ni lépp. ñaan yàlla yokk seeni leer. Eh, taas ci seen i barke li ñu yéene te koy mébé te fas yéene ko yéene liggéeyal nañ taxawoon ñoom doon ko liggéeyal la Serigne Touba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 nan jëm ci yàlla. nan jëm ci yàlla. maa ngi koy baax a baax de. ngi koy fàttali bu baax a baax de.